grand li nga sañse lan la mais grand gars yi gars yi nee ma lu tax ma man leen man Bécaye sama mag yéen a ngi fàttaliku bi Bécaye naan ay bu ngeen xamoon li may dégg ci suuf loolu grand chef d'œuvre la grand nuyu naa la. buur fay naa la yaa ngi ci jàmm yàlla na sa jàmm yàgg. ñu jëm la premier dem boo jëng am lu mu doxalee ak Modou Lo Modou Lo lool ma ni combat booyal na boppam ndax moo nee li ma def soo ma ko defaatee ma def la li ma def diggante Boy Niang 2 ak Modou seetaan naa le premier janvier Robert Papakan seetaan naa le premier janvier Moustapha Gueye seetaan naa le premier janvier Mbaye Gueye Tigre de seetaan naa le premier janvier Robert Moussa Diame seetaan naa le premier janvier Mame Ndiambaan seetaan naa le premier janvier Mor Fadam ay premier janvier. lii mooy làmb loolu moo koy neexal waaye quand nanu yem waa nanu discipliné tuuti jarul xeex bi ku nekk na nga toog fi nga war a toog waa làmb la te day mujj romb la dans deux semaines trois semaines dootoo waxtaan loolu leneen ngay waxtaanee. booy yëg nee ko damay dagg jàng yi le premier. waaw parce que booy ñaa ko war ku dugg sa dëkk fa man mu daan leen li ko war mooy mu furli leen loolu muy wane ci signature yi na doon jom. mu indi ko la premier na ko waa gars ñaax mu xamal ko ne yow la boo daanul Modou Lo mënoo ku koy daan Pikine amul Modou Lo seesam lay teg buntu Pikine bu ko bu daanee Boy Niang Boy Niang na yenu loolu waaye mi ngi bëreeg ndaanaan de waaye ñoom ñaar ñëpp dama leen a gisoon ba nuy commencé combat bu méttee ngi noonu combat bu neexee ngi noonu combat bëre yàlla nam songoo yàlla ko dóor mu daanu jeexal yàlla nañ songoo bëre. yow bokk nga ci ñi wane Modou Lo yow. waaw Sénégal ñëpp xam ko. tey yan qualité la Modou Lo. non yi ma xam ci moom moo bari am na fulla am na fayda mën naa bëre am na pas li mu am dafa bari ci làmb booy bële nag daa ñëw ak revanche. dafa bëgg a def loxo li Pikine kenn defu ko fekk un roi nga daan ko musul am la bëgg te daan na benn daa bëgg ñaareel te bu ñaareelee dina ñetteel lamb bu neex a le oh, makan ah waaye lamb ji lamb ju rëy lamb ju rëy lamb ju metti lamb ju neex. yàlla nañ ko yàlla na ko dund. yàlla nañ ko fekkee. yàlla na ko wér grand. yàlla na ko dund. yàlla na ko wér. nañu la fi yàlla rek ñu jël la gis. dégg naa. waa Pikine am bés bu rëy le premier janvier. Modou Lo dugg Pikine dafay jaloore. keroog ba mu daanee Ama Baldé dama ne waaye Pikine bu maestro Biram Pikine bu Sadio Ndiaye bu Papa Diouf bu Ndongolo. combat Modou Lo Boy Niang nu ko waa Pikine laajee li tax ma laajte loolu mooy gis nañu ñagas ñagas yi ak communication bi lu musta am biir Pikine te xale yëpp di seen doom. waaw buur maa ngi lay nuyu di nuyu waa Pikine gépp di leen wax ni làmb la woon Modou Lo dugg na Pikine duggaat Pikine mu neex ci moom waaye nag ñu ngi ñaan yàlla mu yem fa ndaxte ku daan ëmb seen daan Ama Baldé fa nga yem mi ngi dugg nag ci booy bu doy war dugg ci booy bi doy waar erreur amoon na nag de communication mais nag ñun magi Pikine Mansour gi nii Balla ngi nii taxaw nañu réglé li ñu war a réglé ak dégul waaw loolu moom dañu féete nañu féete nañu boor dëgg moom nag bis di ñaan yàlla yàlla may ñu dam nag. waaw Pikine lu ñu war a doxalee ci bés bésu Boy Niang tey déglu ko c'est le roi des arènes c'est le roi des arènes Boy Niang il n'a rien à perdre ci bi bu daanee am ndam bu daanee am yokkute. waaye nag du ñëw jël làmb ci yamu ko. déedéet Modou Lo est le roi des arènes dama ñëw déglu la waaw te nag benn secret am na ci làmb ji la mu def keroog contre Ama Baldé na koy indi contre Modou Lo na koy indi contre Boy Niang. mooy bañ a takk bañ a na ko def ah. sax ko def à suivre ba le deux wala le premier ci guddi. kon ba tey ku gëm la ci làmb. mais c'est très normal. c'est très normal dafa am ci dafay bokk ci làmb ci làmb la bokk. <laughs> tey boo amoon message booy lancé waa Pikine pour ñu bennoo ñëw gunge Boy Niang. ñu def union l'union fait la force ñëpp tous derrière Boy Niang ñu ñëw le premier nekk ci ginnaawam ñu ñëw yàlla ñaan yàlla may ñu dem. est que dina yomb. non dina yomb parce que Pikine réerewuñu c'est que nag toujours foo dem am na ay trouble fête mais Pikine magi Pikine réeré wuñu Boy Niang Ama Baldé euh, Eumeu Sène réeré wuñu waaw ñëpp dañuy dem ñëw nekk ci ginnaawam ñëpp nag gannaaw ak contre petit ñëpp dañuy ñëw nekk ci ginnaawam. ngeen ñëw bëre daal. bëre yàlla may ñu dem. merci beaucoup. merci beaucoup père. loolu maa ngi fay. père Boy Niang ñi mel sa mbëri mi lool. c'est normal. ndax tolluwaay la. tolluwaay mooy la fu ko def sosu sooy il fallait que mu ñeme ko te yaakaar naa ne di boo jëlee avance am lekk ko di xaar la sorti soo ko ñemewul ñu war ko laaj am na droit ñeme ko. waaye fi ñu yegg démb fi ñu yegg démb bi bi ñu signé combat ba tey ñu ngi fay soog a yegg démb xam na sa poulain xam naa ko Modou mer na dënnam jug na daawuta mer nag. yëkkati dënam yombul xëy na salfaañoo mun woon ñàkk démb mu am mais li ko bariwul ku dal la ku tey la ku xam doomu adama la ku xam ni nit di ñëw ci moom la lu mu recevoir mu encaissé ko rek xam na quelque se passe. wala nee na booy ñaar li nga ma def soo ma ko defaatee soo ma ko defaatee ma def li ma defoon. loolu dëgg la ci moom lu mu la wax koy def. loo ma ca naam lu mu la wax koy def dëgg ci moom. benn ñu gëm Modou fan taxaw lan la démb Modou après action bi Modou mu ngi bang rek toogatul. ngëm ci moom dafa yàgg ci moom deret la ci moom jikko la ci moom te loolu mu wane noonu loolu moo la ci moom loolu mu wane looloo la ci moom borom mbir mi la borom jom la. jàpp nga ne dana fidèle jiyaar diggante ma Boy Niang ndax nga ne ndax dana fidèle jiyaar diggante ma Boy Niang mënut a ñàkk mënul ñàkk ndax càppaacoli du may kenn dara te nu ñaanu kenn dara nun nu ñaanu kenn dara kon nana métti waaye jekk na mënul allah macha allah dañuy xaar ba sorsi rek ñëpp am jàmm ñu dégg fii ñu defar lu xees ñibbi bi jërëjëf Bour Gueweul